alhamdulillahi alkarimi silmilan alastifaad bifurud wa sunan sakartuhu lianna qad saahani liwatani bihi nafa ma anfani bismillahi irrahmani irrahim te mooy sunu jotaayu juróom ci sunu téere alminaxul miskiya fil xawaarixi almbakiya ñeel sëriñ bu baax ba sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana sunu juróom-benneelu jotaay Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana nee na wa minha qissatu Muhammad ibni na ca xawaarix ya bokk na Ahmad Baba al Ahmadiyi nettali boo xam ne dafa doxoon ci diggante sëriñ bi ak Muhammad Ahmad Baaba bokk ci giirug daymaan alladi mi nga xam ne laqabahu daf ko daan dakkantale a cheikhu sëriñ bi bi zarruuq ci zarruuq zarruuq boroom xam-xam bu mag la wa washtahara xam nga dafa def wa bihi ishtahara da ngay naan washtahara te mu siiwe woon inda sawaadina ci nit ñu ñuul ñi muy Zarruq wa bi Xattaab daana ko dàkkantale tamit ci turu Xattaab ñaar yëpp eh, ñiy gëstu ci mazhabu imam Malik xam nañ leen bu baax ay borom xam-xam bu mag lañ eh, seen saruxu ya tabarakallah leer na naññee eh, wa kaana nekkoon na aseyku sëriñ bi yu yubaasituhu daan kafanteeg moom daan tàllalanteeg moom kathiran lu bari wa yaqusu tamit jàpp bi anfihi ci bakkanam wa bi uznihi ak ci noppam ba wa yaqul muy wax loxoo ñegu naa ko anta yow daal zarruq yaay zarruq taaratan ay jamono wa taaratan mu naa ko xataab yaa di xataab laqabahu daf ka dàkkantale na dàkkantale na ko cheikhu sëriñ bi bihima ci ñoom ñaari ñaar yi lu tax mu ne li kat bii ngir ak bindam loxoo ñeel sëriñ bi taalifa hima seen ñaari taalif ya awala taarufihima njëlbeenug seenu xamante moom ak sëriñ bi cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana nee na bokk na ci xarbaaxi sëñ Tuubaa yoo feeñ nettali bii nga xam ne moo doxoon diggante sëriñ bi ak muhammad muhammad ibni ahmad baaba addaymaani yi moom nag sëriñ bi daf ko daan dàkkantale zarruq léeg-léeg it mu dàkkantale ko xataab waaye nee na nit ñu ñuul sax zarruq gi lañ gën a miin moom lañ ko daan wax nee na moom ko amoon tawféex la sëriñ bi daa daan kaf ak moom ndeysaan di di ko tooñ di jàpp ci bakkanam bi jàpp ci nopp bi naa ko yow yaay zarruq léeg-léeg it mu na ko yow yaay xataab li tax sëñ bi di ko dàkkantele lool nag moom moom mi dafa bindoon téereb Zarruq ak téereb Xataab da ko bindoon bindum loxo ñëw jox ko addiyee sëriñ bi sëriñ bi di ko ko dàkkantele nag loolu moo ci jamono jami doog a xamante ak sëriñ bi moom naaru gànnaar bi wasaale ko loolu mooy anna Muhammad ibn Ahmad naka sëñ Muhammad mii day ataahu dafa ñëwaloon sëriñ bi fii shahrin ci aw weer bi mushafin ànd ak kaamil boo xam ne katabahu moom moo ko bindoon lahoo ñeel sëriñ bi bi isnihi ci ndigalam fa awadahu mu wotteel ko ko cheikhu sëriñ bi xatta toobat ba nga xama ne eh, teey na nafsuhu bakkanam wa qarata sedd aynuhu xolam dañ koy firi bëtam rek ne qarata aynuhu mooy xolam sedd na awaluma la njëkk ci la nga xam ne faxala def na lahoo ñeel ko aseexu sëriñ bi baada salaami ginnaaw bañ nuyonte ba noppi an mooy ba nga xamee ne daxala dafa dugg moom sëriñ bi walam yalbas te ya gudde wa ataa mu indi bi dirin ci benn yëre saabixin buy aju jot xasifin buy aji tal xasani sibqi buy aji rafet ak suub aswada bu ñuul yal ma boo xam ne mi ngi melxati min sibgati sawaadin ci mu bàyyi ko ci cuubuk nit ñu ñuul ñi al maarufati bari bu ñu xam bi palmaan ci baatu palmaan la ko jox mutarraz boo xam dañ ko wutal baatu mbubb mu yett baatu mbubb rek waxaama ta taxaw bay na yedee ci kanamam yu hayyi u di jekkal famal xamiisi maanaam baatu mbubb mi wa yadxaku muy ree moom sëriñ bi wa sayku sëriñ bi tamit zarruq sa mooy sarruq jaayale sun moom mi nga toog yadxaku di ree fala matam ma bi nga xam ne mat na tahayi uhu ak préparé bi ñu jekkale mbubb ba mu war ba bi bi defaree ba mu mel ni war a mel albasahoo mu solal ko iyaahu moom daal bi yeddihi alkarima di ca loxom bu tedd ba nekkoon na famuhu famuhu mbubbum bopp mbubb mi baatu mbubb mi waa si an yaatu fa axasa mu daal di jël lëhoo ñeel ko ibratan ab puso wa dayaqahu mu xatal ko ala xunqi ca doqam nga dégg nga nee na sëñ bi ku yàlla mayoon la mu jege sëriñ bi lool am tawfiix li waraloon seenu xamante nag mooy Muhammad ad-Daymaani mii sëñ bi daf ko mas a binduloo ab kaamil mu bind ko indi ko ci sëriñ bi bi mu ñëwee sëriñ bi teral ko lool ba xolam seddu lool bokk na ci la mu ko defal rek wala boog mooy la mu ko njëkk a defal mooy sëñ bi dafa dugg ci biir yeggu fa daal di génne am mbubb mbubb mu jot sëkk rafet lool ñu cuub ko cuub boo xam ne ma ngay melxati dégg nga mooy mbubbum palmaan daal koy kuppati nag wutal ko ab baatu mbubb ko xam ni yenn yëre yi def yëre yi nga xam daanaka ab baat la ñuy gën a am baat bu mel ne baatu eh, tabarkàlla xeetu njëmput yi na sëriñ bi ci boppam moo ko ko doon jekkalal jekkal ko ba mu jekk fekk mbubb mi baat bi dafa dafa yaatu woon Euh, mu jekkalal ko bam yam yem képp ci moom sëriñ bi solal ko di ree sa ruux mi sa ruux moom mi ngi kontaan di ree lool moom it ndeysaan sëriñ bi moo ko solal ci loxoom yu tedd ya wa balaxani cheikh Mouhamadou Lamine nee na wa balaxani jot na ma maanaam nettali nañ ma ni annahu naka moom de lam yanziu summiwul mumma ilaa an maata ba nim faatu rahimahullahu yàlla na ko yàlla yërëm rahmatan waasiatan yërmaade ju yaatu nee na ba nim faatoo sax mujjul summi mummi ngir di ci barkeeru wa fi haadha alxamiisi nekk na ci mii mbubb wa xusnihi ak taaram bi wa ilbaasi haadha alwaliyi ak solal gi nga xam ne solal na euh, waliyu bi solal na ko iyaahu moom daal naar bi bii ci moom xalan shiraahin ànd ko yaatug dënn wa daxkin ak ree bila talabin ci lu dul ak càkku wala taaridin du caagan ak gaaral xabloo ci lu ko jiitu nekk na ci lii daal isaaratun ak junj ilaa xusni xitaami jëm ci rafetug mujjam wa isbaali sitrillaahi ak sëmbërtalug maanaam yaatu muuruk sutura si yàlla taala mu kawe mi aljamil ka aj rafet alayhi ci moom naaru gànnaar bii cheikh mouhamadou Lamine Diop Dagana nee na ba nim faatoo cheikh mouhamad mii ñuul mbub mi ngir de ko barkeeloo mu ne waaye ku seetlu xissa bii dim deme ku seetlu nee na ku seetlu xissa bii ni nga xam ne noonu la deme ak naaru gànnaar bii ni nga xam ne noonu la amee tawféex ci sëriñ bi sëriñ bi jël mbubb mu rafete nii jox ko ko ba noppi ànd kook yaatu bam ko koy solal mi ngi ree solalal ko boppam te naar bi sàkkuwu ko gaaralu ko xam nga sàkku ak gaaral dañoo bokkut sàkku moom mooy nga wax lu leer naññi sàkku mooy kii sàkku day wax lu leer naññi maanaam day wax ne moom kat daa bëgg nangam ak nangam ak nangam ñu xam ne kii kat day sàkku nàngam loolu mooy sàkku gaaral nag mooy li nga soxla da koy junj maanaam maanaam daal di kii sàkku mooy day ñëw ne man de damaa bëgg nga jox ma nangam waaw sëriñ bi damaa bëgg nga may ma am mbubb moo xam ne dama ciy barkeelu kooku moom dafa leer nañ ak sàkku la gaaral rek mooy nga toog ci sëriñ bi daana cëy sëñ bi yow da xam naa sa ko ko amoon ndeysaan loolu tawféex lay doon gis nga ni ñaanoo ko waaye da ngaa waxe waxin xam ne da koo gaaral nee na nag naar bi sàkku ko gaaralu ko sëñ bi jekk-jekk jox ko ko ànd ak xol bu sedd di ca ree ba nag wëlbatiku solal ko ko loola ku xool lool danga xam ne loolu li muy junj mooy kii ku nar am ak mujj ko rafet la waaye ku yàlla suturaal la tamit ndeysaan yàlla noonu yàlla suturaal ci suturaalam googu cheikh Mouhamadul mi nee na fala mat ma an na ba nga xamee ne dal na moom naar bi wa nasalata mu wàcc baalaxa jotal na a cheikhu sëriñ bi fii ikraami ci ak teralam aadatuhu te loolu mooy aadaam rek maa woo ànd ak moom ilaa añal tafata jëm ci ba mu gestu bihi ci ànd ak moom ila tasrih jëm ca yeewi ga axraja génn na loxoo ñeel ko moom sëriñ bi nal kaari di ca euh, defukaayu kayit yo ca ngaraya barab bi ñu def téere euh, kayit yi mushafan am nëqu kayit bu tollu kaamil ndaa wax mushafan rek waaye ay aw kayit rek la hmm, maanaam luy tollu kaamil ci aw kayit ci ay kayit wa amaroo mu digal ko bi kat bi ci am bindam gis nga kon dara nekku ca woon waxaddalohoo mu limité mu daytal ko fii astaar yi ci rëddam ya sataar yi tisata ashara fukk ak juróom-ñeent ci ay mbind wa basharahu mu bégal ko moom sëñ bi bi annahu ci na ko moom mii day kamil bi ma lay bindoo yakunu dana nekk lëxoo di ko ñeel moom naar bi xijaaban di barage xani zabaniyati walis waa zabaniya te ñooy tisata ashara fukk ak juróom-ñeent yi xambu sawara alayha tisata ashara su ma inna zarruq topp naka sarux istazanahu diisoo na tàggu sëriñ bi li ziyaarati qasrihi ngir siyaare ji dëkkam boobee tuubaa te moo di tuubaa wa sukkaani ak way dëkkam minal ixwaani ci mbokki taalibe yi wala awlaadi ak doome wa kubbaari talaamis ak way magi taalibe sëñ tuubaa yi wa kuntu nekkoon naa man Muhammadu Lamin ana man alwaasita di alwaasi alwasilata di digale ba maa doxoon seen diggante bay noo maa seen diggante ñoom ñaar fala ma axbartu ba may xawaaree bii ca loolu asayxa sëriñ bi fariha bihi dafa bég ci loolu gaayatan day talub mbégte waxaala mu ne maa kunt mu ne nekku moon avonnu di njort ni an na loxoo naka ñeel na ko sax moom mbokkum naaru gànnaar mi misle hatal iatina lu mel ne gile sonne woo su ma asina loxoo topp mu digal ko fa zahaba mu dem wa nasala mu wàcc ala ma samba ci sëriñ ma samba mbàkke ak cheikh mi mbokkum sëriñ bi waxaama taxaw nag bii ci mbiram a cheikhu sëriñ ma samba jiddan lool ginnaaw ba nag Eh, ba mu fa toogee la yàlla dogal mu toog fa wa marida mu daal di tawat indoo fa sëriñ Masamba wa maata mu faatu rahmatullahi alayhi yàlla na ko yàlla yërëm aama tol sa sin ci atum junni ak yetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent eh, tabarkàlla eh, summa baada ashhurin topp ginnaaw ay weer raa gis na asayxu sëriñ bi waraqatan aw kayit maktubatal wajhayn boo xam dañu bind ñaari paas yépp bind ci ginnaaw bind ci fee tuharrikuha mu koy yëngal a riyaaxu ngelaw la wastal bayti ci digg néeg ba ëllë si néeg ba nga xam ne xoo moom sëriñ bi fii mang ca saama saata matarin ci waxtu taw bi laa rexin te anutoog anutoog ngelaw nag Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana nee na naaro gànnaar bi ndeysaan bi mu wàccee ci sëriñ bi defal sëriñ bi mbind moom mu ko joxoon sëriñ bi defal ko teraanga jooji nee na sëriñ bi nag da ko teral lool baalaxa baalaxa mooy teral na ko ba ba ba teraanga ji àgg fu sori teral na ko teraaga ju ne ndeysaan bi mu demee nag ba toog la yàlla dogal mu toog ko te neen sëriñ bi yàgg na koo teral nag bi mu demee ba war a dellu nag sëriñ bi war koo yeewi sëriñ bi dafa dem ca famille def kayit yi daal fay tibb nëkku kayit lu tolloo kaamil jox ko ne ko lii boo demee nga bindal ma ko te nag pa bind yi maanaam sàttaar bi na nekk fukk ak juróom-ñeent ne ko nag loolu boo gisee ma defal la ko mooy incha allah ñi xam bu sawara fukki malaaka lañ ak juróom boo ma bindalee kaamil bii ba def ko defe ko nii ma la ko sante mu nekk fukki bayit fukki bind ak juróom-ñeent mooy dox sa diggante ak malaaka yooyu di xam sawara mooy kon suñ borom dañ la goreel ci sawara rek ginnaaw loolu sarox tàgg ko ne ko may damaa bëggoon a jaara tuubaa siyaare dëkk ba siyaare ña fa dëkk ci ay mbokk ak taaliba yu mag yi rawatina sa njabootu bopp gi sëñ Mouhamadou Lamine nee na man maa nekkoon seen diggante bu sarox soxlaa dara man la koy wax maa koy wax sëriñ bi ne ko sarox nee na nangam nee na ba ma ko waxee sëriñ bi sëriñ bég lool ne ah, wax dëgg yàlla coono boobu bépp day ak gi sonnay googu ak yitte yitte jooju day jëpp moonu nag àgg na ca nag daana waaye jox naa ko ndigal kon mën naa dem mu demee mu daal di wàcc sëriñ ma sàmba Mbàkke mi rekk sëñ Tuuba sëriñ ma sàmba moom it xam gi mu xam ne kii nitu sëriñ bi la mu teral ko day tol teral euh, mu daa di toog foofa waaye fa la feebare gannaaw mu daal di faatu yàlla na ko yàlla yërëm man ko loolu nag man ko def ci atum bu dee ci gàddaay yonante bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam junni ak yetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent loolu du sori 1921 1921 waaye ginnaaw bi histoire bi jàllee nag ba bañ teg ci ay weer bañ teg ci ay weer sëñ Tuubaa radiyallahu anhu dafa gis aw kayit ci biir néegam kayit woo xam ne ñaari page yëpp dañ ko bind ngelaw li di ko di ko di ko di ko yëkkati di ko yëngal te amutoon ngelaw maanaam amutoon ngelaw loo xam ne moo ko mën a yëngal waaye gis na daal këyit wi am na lu mel ne ngelaw lu ko yëngal mu yëngatu mel ne këyit wi dafa am lu ci nekk ci digg néeg bi booba nag mu ngi doon taw waaye taw bi anut ngelaw kon këyit wa dara nga ci moo tax ne fa xaama mu jóg moom sëriñ bi ilayha jëm ca këyit wa axasaha mu jël ko wa nadara fiha mu xool la ca ne fa isa hiya ndekete yoo maktubatun la ñu bind ci këyit wa fii xabari mushafin mi ngi nekk ci xibaaru kaamil kaamil ba kaana boo xam ne nekkoon na yaktubuhu di ko bindal li cheikh ñeel sëriñ bi fii ardihim ci seen suuf wa arsalahu mu yónnee ko ko wa yaatatiru tamay dogal ngant li adamil idyaani ngir ñàkk a dikke ga bihi ci moom wa yatlubu tamay sàkk duaan ak ñaan am na ñu bind ad duaa asaliha am ñu bind duaan ak ñaan saalihan guy aji yiw minhu ci moom maanaam sëriñ bi bi mu jëlee kayit liir ko ndekete yoo naaro gànnaar boobee da ci doon dogal ngant di ko wax di wax daal kaamil boobu di ko wax mbirum kaamil ba ko sëriñ bi doon binduloo mbirum kaamil ba ko sëriñ bi doon binduloo nee na naaru gànnaar booba ma ngi koy dogal ngant naa ko maa ngi jéggalu ci ñàkk gi ma ko ñàkk indi waaye maa ngi sàkkoot ci nga ñaanal ma ñaan gu yiw sëñ bi nee na xaala a cheikhu maanaam kon leetar bi dafa nekkoon ci sëriñ bi sëriñ bi gisu ko woon bi ko ngelaw li yëngal day mel ne kon daa bëgg a euh, leetar bi day fàttali boppam tawfiq suñ borom moo dogal rek ngelaw li di yëngal kayit wi ngir fàttali sëñ bi ne ko leetar bii day mbirum sa mbokk moomee naanu gànnaar bu baax boobee day mbiram moo ca nekk mooy leetar bu mu la bindoon te xëy na te ko su ko def mu wax ci wàllu kaamil bi ak di ko ngànt ak li tax mu andiwu ko ak di sàkk ci moom ñaan sëñ Tuubaa nee na fala la maa qaratuha bi ma jàngee leetar bi sharaatu laa tàmbali rek addu lahu di ko ñaanal wa amartu sama digal man bi xur bi ñi nekkoon sama wet min al iyaali ci njaboot gi an yaqara mu jàng kullun képp minhum ci ñoom arbaina yéen fukk min surat al ixlaas ci qul huwa allahu ahad fa sharaxu ñoom dañu daal di sóobu sharaxa mooy tàmbali na sóobu na yaduuna lahu di ko ñaanal falamma ata cheikhu bi sëriñ ñëwee bi baabi liqaayi ci bunt bi muy dajeek nit ñi ñu koy siyaar si lii mu daal di ci man li yuri yéene ngir mu war ma al waraqata mbind ma ndax man maa doxoon seen diggante wa kaana nekkoon na moom sëriñ lam yara nekk te gisutoon maa fil la nekk ca geneen ga ma nee na kayit bi dañoo bind ñaari page yëpp sëñ bi nag bi muy jàng paas bi ci kaw rek la jàng wëlbatiwu ko sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nee na sëñ bi gisutoon la nekk ci geneen wet ga falamma ataytuhu bi ma ko dikkalee axasa jël na ala waraxata kaydoo fa ida ma fil bi thaani nekk da nekk na ca wetuk ñaareel ka maktubun ilayya luñ bind mu jëm ci man was daada daa di dolli ko nag taajuban ak yéemu wa kaana te nekkoon na muraadul kaatibi nammeelu aji bind leetar bi an tasbixe mooy ba jiitoo albarawata lettre be la dayee man fa akkoona su ko dee may nekk waasitatal mushafi di digale kaamil bi wa iqaafi cheikhi ak xibaar sëñ bi yëgal sëñ bi ala maktubi ci liñ ci bindam li yaalama ngir mu xam utarahoo ngantam walam yaqdillahu waaye yàlla dugalu saalika loolee is ngir sabaxat jiitu na fi cheikhi ci sëriñ bi wa dallat anhu tam réer fa moom li xikmatin ilahiyatin ngir dogalu saa borom xikmab suñ borom subhanahu wa taala sëñ sëñ Tuubaa nee na bi mu jàngee leetar bi saan daal koy defal li mu wax nangul ko ngàntam ñaanal ko ñi nekkoon ci wetam ci njaboot gi mu sàkku ci ñoom ne ku nekk na nga jàng ñeen fukki qul huwa allahu ahad yéene ko yool bi lii nag kon danañ ci dégg ne ku faatu ñu jàngal ko ñeen fukki qul huwa allahu ñeen fukki qul huwa allahu danañ ci jàng ne kon lu baax la ndax sëñ bi digal na ña denn na moom ñu def ko kon na ñeen fukk ak benn léeg la ñu wax ko waaye lii daal ñeen fukk la sëriñ bi loo ci jàng baax na nee na ñoom it ñu daal di koy jàng daal di koy yéene yool bi ginnaaw loolu sëriñ bi ba mu ñëwee ci bunt bi muy dajeeg ñiy siyaar si mu yónnee woolu ma ba ma ñëwee mu won ma kayit wi waaye bi mu jëlee kayit bi di ma ko won rek ndekete seetlu wuutoon la nekk ci ginnaaw ginnaaw kayit wa ndekete ndeysaan cheikh mouhamad moom yi addaymaan yi ñaari paas yëpp la bind benn paas bi da ko adressé sëñ mouhamad Lamine Diop Dagana ndax comme moom comme wóllëre la bu ma saan ñëw ci sëñ tubaa sëñ moom la daa doxale diggante sëñ ma mat Lamin Jóob daaka na moo daa nekk seen diggante moom it bëggut a bind sëriñ sëñ bi directement di ko jox kaamil wala muy wax ak moom dara lu jëm ca loola daa adressé lettre sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana bëgg bu ko sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana jàngee ba noppi daal di jël lettre yóbbu ko sëriñ bi nag leeral ko ko ne ko mi ni nii lii lal bind kon benn wet gi Cheikh Mouhamed Lamine Diop Dagana moo ko moom bi ci des sëriñ bi radiallahu anhu moo ko moom sëñ bi doo ko gis la ca ginnaaw nag neen sëñ bi yéemu am gi mu ko bind sëñ Tuubaa sax day wut intermédiaire boo xam ne moom la ko sëñ bi boole woon ngir fonk rek ngir fonk ab jaaruwaay ndeysaan nee na lool la bëggoon bëgg leetar waaye nag yàlla dogal na ne leetar bi ci sëñ bi la la njëkke daa di réer ca moom lu fekk booba xëy na yàlla na namoon ab dogalam rek su ma baax de saalika topp ginnaaw loolu naa xibaar nanu moom sëriñ bi ne bi anna zarruqan ci naka zarruq moom i da moo di ahmad addaymaani lamma ataahu ba mu ko dikkale almalakaani ñaari malaaka yi fii fii xabrihi ci bàmmeelam li suaali ngir di ko laaj ajaabahuma tontu na leen ñoom ñaar rabbuhu boromam muy suñ borom anhu walis ko bi haasa ci ne bi haasa bi ci ne haasa kii day da koo tontu ci ne kii ngeen ne laaj abdi saab jaam la fan sarafa ñu daal walbati ko ñoom ñaar lay saan sëñ Tuubaa radiyallahu anhu ma Mad Lamin Joob Dagana nee na xibaar nañu ne Zarruq mii day ku yàlla may la bañ ko dugalee ca bàmmeel ñaari malaaka yi dikk ko di ko laaj suñ borom moo ko wuutu moo ko wuutu moo ko wuutu tontul ko nee na lam tontu malaaka yi moom seen dalay wax ne mën ngeen a dem kii moom sama jaam la waaw loolu moom doy na sëkk ndax ñoom <laughs> dañ koy laaj naa ko man rabbu ko ak nangam sëñ Tuubaa nag moo far tontul boppam ne leen kii moom saab jaam la ñoom ñu daal di ñu daal di wëlbatiku kon xissa bii mu nettali ci naaru gànnaar bi da nga ciy dégg lu bare bari nga dégg ne sëñ Tuubaa ku fonkoon alxuraan la njëkk naar relation bi mu am ak naar bi mooy naar bi daa ñëw indil ko kaamil gis nga teraanga jëm ko defal teraanga jëm ko defal lépp di foog moom dem ba am relation moom di kafak moom di jàpp bakkanam di jàpp ay noppam jël am mbubb boppam mbubbum cuub-cuub bu rafet ñëw noo seulement jox ko ko ak xol bu sedd ak lépp waaye jekkalal ko baatum bi ba nag solalal ko ci loxom bu tedd bi defal ko teraanga ju bari ba nag jëlaat alxuraan kaamil joxaat ko ne ko ko te rëdd yi wax ko ci lam ko ci dikk ak lépp ba tax na kooka ba duggee ci bàmmeel gis nga lam ci fekk loolu lépp coobe rek suñu borom subhanahu wa taala la alhamdulillahi alkarim silmilan ala sihadi bi furudin wa sakartuhu li annu xad sahani bi nafa ma